kuy làqatuy mandi booy jàng di yàqu juróomi xale yu jigéen yi réere woon Touba te far feeña Dakar libération xëy na dañu xamal ne li ñu doon wax naan dañu leen a kidnappé dara amu ci ne ci jamono ji ñu réere seeni mbokk nekk ci jaaxle dugg dëkk bi fu nekk ñu leen fay wër ndekete booba ñoom xale yu jigéen ñi ñoo nga lagros ci seeni far di happy piscine party la ñu organisé woon libération dolli ñu ci ne ci juróomi xale yu jigéen yooyee am na ci ñett ne ay ñaar ñi fukki ak ñeent la ñu am kenn ki am fukki at ak juróom am ñett ki mag ci ñoom nag mooy cerveau bi la am am kër ki ñu doon wax naan moo leen kidnappé enquête bi feeñal na ne kookee aw faram la leen gendarme yi gisee ba jël leen yóbbu leen gendarmerie di leen enquête ci la ñu ne ci ñoom juróomi xale jigéen yooyu am na ci ñetti mineur ci la ñu ñetti mineurs yi yóbbu leen cib gynéco ngir ñu def ay test ngir xam ndax yegg nañ ci seen kaw am déet test yi ba ñu génnee la wane mi ngi ci libération